ñuy noot dañu bàyyi suuf bi ñuy taxa taxatee ah bien fait bien fait su ko jot waaye li ko jëlee naan rek. muy yéen ay yéen saa si kaw bi. waaye léegi on le fait. potaar sama potaar bu tase sama kii bu tase am na la gannaaw. arrêtez. C'est bon. waaw man la Babacar Sall di euh, coordinateur cercle des étudiants orientés dans le privé, en même temps aussi membre du Front National pour le Progrès des étudiants euh, qui sont au niveau du Sénégal. lu ñu euh, front bi ñi sama front euh, camarade Guy lu ñu déposer d'information parce que lettre information déposées, ñu déposé dañu organiser marche pacifique Mars pacifique

foofu euh, camarade Guy Marius Sagna bëgg ñibbi ba mu bëggee dem ñibbi ñun ñëpp ñu ànd ak moom pour ñibbi ñu japp ko mal malmené ko dañ ko mal malmené parce que dañ ko tëral ci télé bi def ko lu leen neex après yëpp ko ci kaw auto bi loolu ñu japp ni su fekkee ni ñun dëkk bobu na nekk dëkk bo xamni nit ñi dañuy taxaw di revendiquer sen ay droit dëkk bo xamni nit ñi dañuy jóge dañuy jug wax li nga xamni mo leen metti nit ñoo xamni dañuy revendiquer lo xamni ñom sen ay droit la su fekkee kuy wax dëgg ci Sénégal dañ lay jàpp di la malmené di la toloxal di la def lu nga xam ne tegul fenn

pour wax tey ñu nga xam ne tey ñoom na bëgg organiser loolu woo leen waxtaan ak ñoom di ma fexe tey ba saafara loolu mais def nu ko mais ñooy dem a fexe pour xooxte nit ñi pour toroxal ay doomu jàmbur ki nga xam tey mooy Guy Marius Sagna dañ ko jàpp maan mu ne ko toroxal ko te su fekkee nan Sénégal yoon amu fi war na bëgg ay yenn fàllu seen waaye ay étudiants yi ñaati étudiants ñoo ñàkk seen bakkan su fekkee ne dana bëgg tollu situation boobu ñun jàpp ne que ñun pare nañu te duñ dellu ginnaaw mukk te aaj incha allah ñu ñu autoriser ko wala ñàkk ko autoriser dara duñu tee ñuy def lu nga xam ne mooy marché boobu parce que suñu droit noonu nekk te suñu avenir ku si koo xam ne koy hypothéqué su fekkee ni ñun dañuy jàpp Guy Marius Sagna camarade Guy Marius Sagna ñu ko xam ne patriote la koo xam ne ñëpp lay waxal koo xam ne waxulul boppam su fekkee dañ jàppee ñun ko jàppee moo tax ñuy dellu ginnaaw ndax noonu seen bopp ndax tey gën motivé wu te dara dara dara gis ñu dara loo xam ne dina tax a dellu ginnaaw daan ko marché daan ko def wax ko ba ñëpp dégg ko ñoo ngi alerte nag suñu autorité étatique yi mais aussi di alerte ñoo xam aussi ñuy opinion bi waxtaan nu ak ñëpp def nañ fi ay sorties médiatique def nañ aussi ay sorties aussi via les réseaux sociaux fu nek dem nañ fa di wax autorité yu bari raconter nañ leen mais bobu lay amul ben solution. loolu mo tax tay ñu nga xam ne combat bi nga doon mëne daan ko continuer di mëne te lepp lu nga xamni nak nag jar na leen ko ñoom jar na ñun lu ko raw parce que ñun la sun avenir te du nang aussi kenn ko xam di ko fooyee. ñun defu ñu fa leen lo xamni dañ koy ayé c'est juste que Sénégal dafa doon dëkk bo xamni kum am ndey la ak kumul amul ndey la manam su fekkene yow da nga néew doole lu nek daan ko def su fekke ne nak dañ la bëgg japp itam fu nek daan fa japp japp la parce que ñom intention bobu la amone parce que fepp fu mu taxaw jëm nañu euh, bouger mais xoolal fii nu wër ñatt nit ngay gis taxaw fi té kenn fekku leen foofu ñu len rassemblement la donc su fekke ñu dañu ñëw fekk ñu ñëpp lu seppi ci camarade Guy Mari Sagna yobbu ko c'est parce que dañ ko singali dongo lool rek la ba nañ ko xel parce que xamna ni mom su deug la nek moom waxulul boppam ni ñun lay waxal ñun ñu nga xam ne étudiants yi ñun ñu nga xam ne boobu léegi ñoo ñun ñu nga xam ne a def BTS le 28 septembre te te te te defuñu comme nu mu waree ñun ñu nga xam ne ñun ñoo nekk fu nga xam ne mooy IVS amuñu machine am lu nga xam ne mooy clé de connexion ñun ñu nga xam ne ñoo nekk ISEP de Diamniadio ñun ñu nga xam ne boobu ba léegi tey euh, condition d'étude yu war sax amuñu ko boobu ba léegi revendication yu nekk def nañ ko ñu nga xam ne ay bachelier ñoo orienté yi boobu ba léegi ñooy revendiqué pour ñu orienté nu